yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di aimer abonné yu ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci bitim réew ak la télé du peuple Songuanté TV. Kpay di transfert bi woor ak Aquaterra ndox mi woor te bisimilah wasala asalaamaaleykum waa Songuanté TV asalaamaaleykum mbokki internet ñu leen nuyu leen siyaar di am bët baax jàkkaarloo yéen saa su nekk tey nag baat bi ngeen dégg mosu ko dégg Songuanté mais loo gis rek la ko waral moo waaw noonu lay demee tey ba tey war a waxtaan ak ñoom ci làmb bi xam ne ni deux jours moo ci des diggante Papa Sow a moom lu bari ci wàllu làmb yi wàllu mystique yi lépp loo xam ne ci wàllu làmb ci war a waxtaan neen am lu ma ci dencal loolu nag laa bëgg xam lan la papa nuyu naa la maa ngi béggee ñëpp maa ngi ziare ñëpp maa ngi béggee waa Songante TV di la ziare di la ñaanal jàmm di ko ñaanal waa lamb diaspora. ndax lamb diaspora ak euh, Songuanté TV defe naa ni mooy comme diggante Macky sàll ak Idrissa Seck <laughs> euh, soow la ak euh, <laughs> ak suukar. kon mun nañ wax ne que lamb diaspora ak Songuanté TV benn la bu kenn jaaxle bu ñu gisee sama image ci lamb diaspora. bu kenn jaaxle it bu ñu gisee lamb diaspora ci man. parce que benn lañu yow sama doom nga sama jarbaat nga suma xarit nga suma lépp nga ma ñaanal yàlla defal la jàmm ak sutura ak xéewal bu bare <laughs> mam mbégte jàkkaar yow saa su nekk nag chaque jour rek mooy su ma seen saa yi may yoon may jàkkaarloo <laughs> ah. ndax ci wàllu làmb ci yow laay roote ah. waaw te kuy roote ci teen doo nangu mu fat déedéet mais noonu lay demee tey ci diggante Papa Sow ak Siteu laay ñëw ak xam nga dañu nekk ci moment bu difficile waaw jamono ji waaw tey ñu ngi di mhm. samedi dimanche mhm. ay mbokki Papa Sow ñu ay mbokki si te nelaw. mais ma laaj la instant entraînement amatul de. non fi mu toll nii ku koy ne te. dama xam loo amul woon ba heure bi foo koy jëlee ti uh-huh. Siteu bu entraîné wul ba heure bi lan lay entraîné ti. moo ma jaaxal Papa Sow bu entraîné ti wul ba heure bi lan lay entraîné ti. moo ma jaaxal boo demoon tey ay foo fin Sénégal fekk fa ay mbokki Siteu mba fekk fa ay mbokki Papa Sow maa la wax li nga ne boo demoon fan. fin fond Sénégal soo demee Guinée Bissau. soo demee Mali soo demee Burkina. soo demee Saloum. soo demee Fadiouth. soo demee Dionewar. soo demee Fimela. soo demee fond fin Sénégal tey di nga fa fekk mbokki Papa Sow ak mbokki Siteu. xuruxaat yooyu yëpp boo demee tey ba ca kiwi jonn ba ca palmarin foo dem di nga fa fekk tey mbokki papa sow dem bi ci firi bi noonu boo demee di nga fa fekk mbokki papa sow moo xam mbaa moo xamul di nga fa fekk mbokki si sita moo xam ak moo xamul kon daal bitéeli ñu ngi dajaloo di ñëw jamono bi ilaha illallah daanaka gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt papa sow dina indi ñaari téeméeri butéel gàtt gàtt sita dina indi ñaari téeméeri butéel lii ñëw ci stade laa la wax de waxuma la li ñuy sangoo ci euh, euh, ci kër yi waxuma la li ñuy gas waxuma la li ñuy suul waxuma la sarax yi jamono bi jaamañe jamonoy sarax la mbër mu la ëpp sarax moo la moo la moo bi mbër mu la ëpp sarax tey boo demoon tey demal demal demal dëkk Sita mbaa nga dem Lamsaar tey ku soxla pom orange banana gerte mboq ñebbe ginaar lépp di nga ko fa am boo ah demee Parcelles Assainies loo soxla ci gerte mbokk ñebbe dugub façon sarax boo soxla tey di ko fa fekk. waaw loolu dayee combat bi la. combat baa ni toll ci benn. ci benn ndax dafa am lu Papa Sow am ci combat bi te Siteu amu ko am lu Siteu am ci combat bi te Papa amu ko. loolu laa la koy wax nan commencé ci Siteu. tey laa la koy wax wënëg bi mbaru délégué bi. Siteu Siteu c'est pour la première fois nit ñi gis rangooñam. public am moo ko dompté public am moo ko dompté première fois. c'est la première fois ñu gis ko ci open press. Mhm. mu tuur rangoñ ci làmb sax mu tuur rangoñ. c'est pour la première fois xoolal keroog ba ko journaliste yi posé question ba muy dem. Mhm. xoolal Siteu ni mu def dafa fël te ku mu doonoon tamit nga fël ne ñii ñooy dawalkatu sareet yi. Mhm. ñii ñooy am mille francs ñii ñooy gor yi man lam saar mooy sama ajana. man lam saar mooy sama si mooy lam saar moom laa am moom laa fépp te ñii ku leen jàpp ma jàpp la ku leen bàyyi ma bàyyi la daal di fil ñu naan téye leen ko ay fu mu jëm téye leen ko ay fu mu jëm ay téye leen open press ba yeggul ndax mbooloo mu bari tey keroog bu bëggoon ay millions yu dul jeex mhm. mënoon na ko def ndax bu amoon bu doon entrée cent franc la si te am gàtt gàtt trente millions wala quarante millions bu doon entrée cent franc la ñaar fukki dërëm la te bu ko jaayoon gars yi jënd ko mu mayee ko ñëw defu fa dara ndax public bu bari xale yi mab sii si si te si te la si si xoolal loolu koy ku mu doonoon tey uh-huh. moo tax may li may wax nii dama koy waxaat uh-huh. mbooloo mi si am est-ce que Modou am na ko mbooloo uh-huh. mi si am est-ce que Balla Gaye am na ko eh man je pèse bien mes mots dama ne. Uh-huh. damay laaj ndax mbooloo mi Siteu am guddi yii. Uh. ndax Balla Gaye am na ko. Mm. mbooloo mi Siteu am ndax Modou Lo am na ko. Uh. mbooloo mi Siteu am ndax Eumeu Sène am na ko. mbooloo mi Siteu am ndax Boy Niang 2 am na ko damay laaj. loolu commentaire ñoo la ci tontu. loolu moo tax ma ne la. Uh-huh. Siteu am na ci combat bi loo xam ne Papa Sow amu ko ci. mooy mbooloo mi ko domtee. Uh-huh. mooy mu mu gëstu gis ay mbokkam. yi mu bokkal meen ak geño gis ay dëkkandoom gis ay am di jàmmam gis ay fantam gis jiili sekk mi dellu siwaat ci wetam. ndeysaan ci bul fàtte sekk dafa dellu siwaat ci wetam euh, dañ ko gracier mu ñëw. Oh. kon xam nga ni Siteu am na lu Papa amul. waaye Papa am na lu Siteu amul. loolu laa bëgg a xam. jàppale Modou Lo <laughs> Eh, doomu Taïba Ndiaye nekk moom moo taxaw ne man Siteu sama mbokk la. waaw ndax sama deret day sëy kër ñoom Siteu. Mm-hmm. ñu tàllal ko micro. mu ne gën a jege gën a yey. Siteu ne nangul naa ko ko. man Modou Lo Papa Sow laay àndal man Modou Lo Papa laa faral man Modou Lo damay ñëw moom ci open press man Modou man ak Papa Sow ñoo dëkk naam bëri woon nañu waaye Siteu sama mbokk la waaye Papa Sow laa faral man Modou xarañ loo dernière open press bi nga xamante ne nii moom la moom la Papa Sow boo demee danga nga faa fekk Modou muy contact ak Papa Sow di rotation. fu ne mu dugg ko kon motivation bi nga xamante ne nii moom la Modou indi ci combat bi sax xamuñu ko. kon dama bëgg ñu xam ni. Modou Lo dafa domte Papa Sow dafa xam nga domte. domte maanaam daf koo roof dangar. da koo pikir. Modou Lo dafa jaay combat ndax. dafa ñëw ba ci biir open press mm-hmm. Papa Sow mm. mu déclaré ni bu Ama Baldé pare pare naa wiir naa péléng dafa am ay këyit yu ma desee tuuti rek mm. pour ma dem yóbbu ko CNG mais wiir naa pëlëng kaay ma won leen ni li tax wér naa di contact ci biir open press Papa Sow di daan di daan di daan di daan mm. ba jël li nga xamante ne nii moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy xam nga ba jël li nga xamante ne nii moom mooy Papa ñoom ñaar mook Papa Sow ñu rat ñuy rotation di jargandal ci biir ci biir ci biir open press bi di jargandal ñu yaakaar ne foofu lay yem mu toog moom wax ak askan wi kon ci combat bi Papa am na lu Modou loo amul Modou Lo am na astafurlah euh, Siteu Siteu am na lu Papa Sow amul. Ah. Papa na lu Siteu. kon Modou Lo mën naa yokk lu bëri Papa Sow ci làmb. da ko koo yokk nga ne lan kan mooy roi des arènes. kan mooy populaire du du du du Sénégal. et du monde. Modou xarañ moo kan moo daan Eumeu Sène ñaari yoon. Modou xarañ la kan moo bëree ak Bombardier. Modou xarañ la kan moo daan Papa Sow. Modou xarañ la mii mii mii ñuy wax nii. Modou xarañ kan moo daan la de Guiers numéro 2. Modou xarañ la non kan moo daan Gris Bordeaux. moom kan moo bëree ak Balla numéro 2 ñaari yoon. Modou mais dama ne la xale bi Taïba Ndiaye bii. Ah. lim def ci combat bi Euh. moo ko tay moo ko tayaatoon ndax màggatu ko kororoj la ah waa waa Parcelles Wrestling xaw ma euh. dañoo warul yëkkate xaalis bu bari fay ko moduloo ci promotion bi mu def ci làmb ci ndax def na ci loo xamante ne nii kenn yaakaarul woon ni Modou dina ko defi hmm. ndax xam nga ku wax feeñ hmm. moom moo taxaw wax ñëpp Siteu sama mbokk la. Mm-hmm. Siteu taxaw daal ne Modou Lo sama mbokk la. Mm-hmm. xanaa yéen a ngi ku bés bi Siteu jóge parcelle jógee jógee Lamsaar dem seeti Modou Lo loolu ñoom ñëpp fàttali nañ ko. ah loolu kay gis naa ko. image yi kay gis léegi. waaw mais loolu bu amee nag naa leen ko may fii. loolu nag bu amee mm-hmm. nag. ñu gën a lente mu gën a lente ak moom. comme match bi tasu la. tas na. combat boobu nag moo tax ma ne la Papa am na ci lu mu ci amul. Siteu am na ci lu mu ci amul ba ci beneen question. ba ci beneen noonu lay demee mais Siteu ñëw ci di ñëw ci làmb ji ak euh, waa jàmm ga ful bi koy topp ñëw ba ci biir làmb ji digganteem ak Papa Sow lan la war a mën a bëri Papa Sow ak public bi. Siteu mënta baña a saafonte ak public xale yi sumi seen yére. sumi seen mbubb. di ko def nii. wëndeel ko pandant quarante minutes cinquante minutes. ci trente cinq mille spectateurs trente cinq mille fans. Oh. eh la ma Max Mbargaan waxoon keroog Demba Diop laa lay waxaat. wax ma ko doon dégg. Siteu dafa doon bëre keroog stade Demba Diop mu ne ma benn Demba Diop ñaata xaaj la ma ne ko Demba ñeenti xaaj la couverte découverte mm. virage mu ne ma Siteu dafa jël ñett yëpp. Mm. mbër mi jël benn bi séddoo kook amateur yi. Mm. mais wàllu suba tey mënut a mënut a kii Papa Sow dara ci suur làmb ja ci li ñu gis. ci bañ a nëbb dëgg. Siteu li muy drainer dégguloo ma ne la est-ce que Balla Gaye dina ko drainer est-ce que mooduloo dina ko drainer. Ah. mais Papa Sow xool ci kaw gis lépp Siteu moom ko loolu du def dara ci boppam. non psychologiquement mbër mu mag la parce que ñëw na ci bés. Ah. Siteu moom stade bi yëpp bul fàtte ne li bii tàngalaat ceeb la. tàngalaat Siteu moom stade bi yëpp te taxewul terewul Papa Sow li mu war a def yëpp mu def ko ba yàlla dogal li muy dogal mais combat bi passe dafa doon gis Papa Sow mel ni ci combat bi am na foo xam sentir mel ni day jooy dafa yenn woon bés bi mel ni day jooy ci benn instant bi mooy muy waaj a bàqu am lu ko metti loolu la ko metti woon pour la première fois depuis plus de vingt cinq ans muy bëreet àndul ak waa mu Moussa Gningue daru ko Gris Bordeaux dal ko ah, Moustapha Gueye daru ko ah. tey laa lay wax tey laa lay wax lu garaaw <laughs> xoolal Moustapha Gueye daru ko Gris Bordeaux daru ko Moussa Gningue daru ko hmm. Forza daru ko ñu euh, Serigne Ndiaye numéro 2 daru ko la Lac Rose daru ko Pape Ndoye daru ko Abbas dooy daru ko c'est pour la Gris 2 daru ko c'est pour la première fois de sa vie mu génn sans ñooñu ñooñu nga xam ne fa lañ ko toqantalee toqantalee ko Ousa Magam uh-huh. toqantalee ko Ousa magam toqantalee ko bàyyam moom Papa Sow hmm. juddoo Faas yaroo Faas màggee Faas ñu hmm. bëgg bund xataal la ba nga génn hmm. dem fa nga xamante ne foofu nga am kër muy parcelle fekk fa roi des arènes ngéem bu ñëw xool ña nga daan àndal gisoo ci kenn. Mhm. nga ànd ak ñoo xam ne ay xale lañu ci lu ñu la ñu bees nga ñëw eh foog nga tumranke mhm. foog nga yenu bés bi foog nga wane jom. Mhm. keroog jomam moo ëppoon. ndax dafa doon wan waa Fass ne leen. bàyyi ngeen ma de waaye dinaa leen wan ni gaynde laa. waaw mu jógee fas bëri igri boppam boobu ba léegi bëreegu sax xale yaa ngay bëri daan. ñëpp ngay moom nag loolu du def protection moom jóge na Fass ba pare ñëw benn écurie ba tey bëreegul te xale yaa ngi bëri daan te xam ne laam moom kuy bëri daanu wala bëriwoo dañ lay raw mm-hmm. te am na ay ku mel ni Franc mu nga fa mm-hmm. ay booy ñoom Delfa booy ñu ngi fii di bëri rek di daan moom nag muy bëri di nii la ak yooyu mm-hmm. est-ce que du def dara ci moom suuru laamu ji non c'est que c'est-à-dire Sow ku bëri ak Lac de Guiers uh-huh. ak Modou Lo uh-huh. bëri ak Nees uh-huh. bëri ak Saalum Saalum bëri ak combat yu mag yooyu kon boo ñëwee ba am Siteu yow yaa may Siteu chance si écurie bu bees bi nga nekk. Uh-huh. si écurie bu bees bi nga nekk. su la yàlla mayee ndam. place bi ñoom booy ñaa toog. place bi ñoom euh, rëg-rëg toog. moom par force dafay toog parce que fa la nekkoon dañ ko faa génnee. waaye bu amee defet képp kuy wut échelle pour yéeg. Uh-huh. demal ci Papa Sow mooy doon sa yéegukaay. Uh-huh. ba tey déggoo ma de waaw parce que mooy yéegukaay bi dégg nga ma waaw bu amee defet ah. mooy yéegukaay bi bàyyiwul làmb ah. làmb da koy bàyyi ndax xale yi ci moom la ñuy jàngee yéeg te xale yi ñëw dañoo am doole ndax jinax ji njëkk génn ah. moom rek dañ naan jinax a ngi nii jene bu génn dañ naan jeneen a ngi jeneen jinax waaw waaw jeneen mais Siteu di ñëw di bëri si jóge si guy gi am defet ah war a ñëw jëlaat ku mel ni Papa Sow xam nga guy gi Papa Sow surantewul mm. ah pour boobu baa da koy nit beneen problème dama lay expliquer ne dama mus a wax benn promoteur nekko ko Serigne Modou Niang ne ko Serigne Modou mu ne ma naa ma ne ko dama am mbër mu mbër mu mën a bëre mu ma bëgg nga tëggal ko combat mu ne ma wut ma mbër mu mën a bëre mbër mu am public laay wut <laughs> dégg nga ma parce que promoteur yi tam leblewuñu mayewuñu dañuy jaay amuñu sponsor sax amuñu sponsor ah. tëb ma ma déglul bu baax li ma la wax waaw waxal ma dégg combat bii passé bii bi bi bi ñoom franc franc bëre ak xaw ma kan. soq soq waaw. waaw promoteur bi kontaanul ba dolliwaat mbëri. waaw loolu moom leer amul sponsor. déedéet. ndax si billetterie. ñoo tëggaat bi si te waaw waaw mais tëggaat bii. Mm. si te Papa Sow yow mu leer la ni star bi daa fay fees. dal dal dal dal nga boole teg ci ay xale mbëri yoo xam ne dañoo am mbooloo. ba pare nakkal boppam moom moom moom moom promoteur bi. waaw. lu mu nàkk nan la nàkkale boppam. am na ci onze combats. équipe bi waaw. dix combats eh. ñoom onze yëpp ñoom ñoo koy bëre. <laughs> bu promoteur yëpp defoon noonu maanaam Fodé Sarr def noonu. Eh. Mor Ndiaye def noonu. Eh. ca parcelle. kon jàppal ni parcelle chômeuru mbër dootu fa amati ndax promoteur parcelle la mu ne damay tëggal mbëru parcelle yi. Hmm. waaw sunu combat mën nañu ci xaar mbër mun jàpp ci wàllu gàllaaj mystique. kuñ ci jàpp ci wàllu gàllaaj man ki yor sama mystique danaa la xiiru Ama Balde bi laay jàpp danaa la ko wëndeel ba ngay gis biddéewu bëccëg. li koppar yi ñu génnee pour mystique. koppar yi ñu génnee xanaa gisuloo keroog Siteu cumm kaayam ci open press bi. xanaa gisoo tey ngàndaay astanaal mystique bi Papa Sow yoroon ci open press bi man ñi ma dënk sama mystique gàllaaj jàpp ma dana la làpp ba ngay gis vidéo bëccëg. kon daal combat bi xalaatoo ci mystique xalaatuma mystique jàpp ci kenn bi. dóor mu daanu wala caxabal mboot wala tël galgal ban nga ci xalaat. fi may daanelee ak yow mooy. Ah. Papa Sow du ñaan Siteu. te lu ko Siteu may mu jël. ah du ko ñaan te lu may mu jël. da koy bugg juumloo Siteu maamu ñëw mu jaar ci poqataan yi jàll. parce que bëre njool la ak ndaama. waaye poqataan Siteu est-ce que ay ay ay dégg ay taxas. moom laa lay expliquer dama ah, la ne. wala barbar nee bar barbar la si nekk da juumloo pour mu ñëw. Mhm. man dama gis ni contraire bi Papa mooy xeex si. Siteu du xeex si. waxan nga ma ko de. dafay xaar Papa Sow juum ci xeex mu jàpp ko yenn ba ci kaw duur ci suuf loolu rek lay xaar. Siteu mun naa yenn nga ne lan. Siteu mun naa yenn Papa Sow. waaw a yenn ku dul yow koy waxal yow kan ngay waxal Siteu. Hmm. am na doole. Hmm. mën na bëre. Hmm. gëm na boppam. am na gàllaaj. xoolal Siteu ñi bëreel yëpp ci làmb ba ci guy gi mujj nii est-ce que waroon naa bëreeg moom normalement. lu ko may fitam faydaam ak jomam luur bu tol ni Zarko xoola ni ko Siteu def luur bu tol ni Zarko laa la wax xoola ni ko Siteu def eh Papa Sow expérience mbët uh-huh. Papa Sow mën na bëre mais uh-huh. Siteu démérité wul ndax yàgg na péré ay ndaanaan di leen daan waaw lu leer laa la wax combat bu neex ngay gis xoolal coup perdu mën na cee am yanu ba ci kaw dóor ci suuf mën na cee am mm-hmm. jaar ci pokataan mën na cee am mm-hmm. xolo loo ci xolo caxabal mën na cee am nooju mën na cee am tequm biir mën na cee am tequm biti mën na cee am galanjaane mën na cee am lu nekk mën na am ci boobu le combat mais mënoo benn benn benn jël nga nga ci yaakaar ardo na indi microcrobe bu bari akub dakin akub alcool ba li nga wax du chômé dina faj ardo bu fajul ci commencement combat bi eh. bu combat bi jeexee ardo dina liggéey kon ay perkil na dugg de kon. dégg loolu li ma la wax de. Ah. dama ne bu fekkee ne Ardo fajul ci commencement combat bi ah. bu ñu demee bu ci ba ba ñu ne jeex na. Ah. ki am na jël. Ardo billaay wallaay dina faj. kon daa Ardo dina faj ci làmb ji. dégg dégg loolu li ma la wax de. dégg naa la bu baax. non lan laa la wax. Ardo. waaw bu faj ci commencement combat bi. bu combat bi jeexee dina am mbër mu dina am mbër mu dina am dina am ku ñu faji. ñoom ñaar kenn ku ci nekk dafa mere moromam. ah dafa mere mer dafa mere Papa Sow ndax dafa jàpp ni keroog bés bi bésam la. Uh-huh. bés bi yàqu. waaw bésam la. Uh-huh. Papa Sow mere Siteu ndax dafa jàpp ni tëgg katama ko xaañ. Uh-huh. kon combat la waaye dafa am lu nekk ci suuf Siteu keroog ñëpp dañ ne moom moom bés bi. loolu la ñëpp waxoon. combat bi yàqu. parce que Siteu rek moo ñëw ci digg géew bi. Hmm. Papa moo dem ca tabarkat yoonu ñu toj bopp ba. Hmm. loolu métti Siteu parce que dafa jàpp ni moo moom bés bi. Hmm. Papa Sow jàpp ni Siteu mii sabar sa sabarkat moo ma xaañ. kon yow yaa yàq bés bi. Eh, ay bés bi li ci laxasu dafa bari de. wàllu amateur yeeg supporter mais xam nga làmb jii du làmbi amateur. lambi <laughs> supporter la. lambi supporter la. lambi supporter la. lambi supporter <laughs> la. non lambi supporter yi fi ëpp amateur yi. ah supporter mais ki nga ni def bii. ah supporter 3000. amateur supporter 3000. amateur 10 000. amateur 10 000. waaw waaw doo demal lus 20 000 léegi nag da ngay dem ci hmm. buntu stade ba nga xool. Ah. supporter yi ñoo fay ëpp amateur yi. lu tax lambi amateur la. lu tax lambi supporter la. lu tax parcelle yow mbooloo Modou Lo mi nar a jaxasoo dem ah. jàppale Papa Sow waaw Siteu a ñëw moom kese jàkkaarloo ak mbooloo Modou Lo dama wax la lenn tey ah. pour nga xam ko ak bañ ko xam foofu laay terminer waaw yëmbal tamit ñëw waaw ñaari boo yëmbal ñu ci foofu laay terminer de ah. bu laajaat dama ne est-ce que xam nga ni Siteu bu daanee xam nga fu muy dem jubilé ji dexoo ma ko de xamoo ko Pikine kër Ama Baldé ndax lu mu am Ama Baldé ku gënal bu daanee kon ma ne bu daanee na waa Pikine buntu Pikine sécuriser Pikine ndax Cité kër Ama Baldé la jëm. taxaw ci buntu kër bi daal Ama. Euh, maa wax loolu Ama Baldé la jëm. ah kon Ama am na problème de. Ama war a daje Gris Bordeaux si la ñëw tàll ko la jëm. te Papa Sow bu daanee. xamu fu mu jëma. Ah. xool xamaguma ko Pikine. kër xaw ma de mais dina jaar côté kër ñoom dëggool yooyu i e. jaa waaw dina jaar côté kër ñoom dëggool yooyu i rombaale kër kër ëma seen waa côté yooyu est-ce que waaw après après après après jaaraat géejawaay nen la de Guiers na nga def. est-ce que soq du ko kàr nga. ma ku koy koj ak ku koy kojul de moom moo mun a. <laughs> Eh, défendre eh, boppam kii Papa Sow ñu ma toog dëkk booy ñaar ma ne li ma la wax dama la lépp. bu daanee. Eh. kër amaa Balde lay dem jubilé ji. Ah. Papa Sow bu daanee bu jógee pikin dina jaar Géejawaay. ay côté ne waa nelaw yeewul. waaw waaw <laughs> lu leer laa wax parce que xaala. <laughs> am na kuy <laughs> am na kuy koo daan. am na kuy nelaw foofu nag. la dëgër da da koo daan waaw. mu métti ko nag. waaw am la la dëgër koo xalab. te la dëgër mu ngi laaj ponkol mi. waaw waaw. moom tamit day bëgg ne ko kaay maa ngi yow. barrière lay yaa wax lu garaaw. lu leer nga wax fii kàddu gu mujj gi. mais bëggee ñëpp sant ñëpp di woo ñëpp ci jàmm. ñëpp nañ dem ci bisimilahi rahmaani rahim ñibbisi ak alhamdulilah rabil alamin ndax bankal sa baaraam. waxal mille cinq cent policiers du ay caaxaan. déedéet. mille gendarmerie ay caaxaan. déedéet. dama ne mille gendarme uh-huh. ak mille cinq cent policiers du ay caaxaan. Uh-huh. ñi sol toni ak ñi solul toni. te dégg naa fas yi dañuy ñëw. Uh-huh. liif yi dañuy ñëw. lépp dañuy ñëw pendant. avant après c'est sécurisé. jëli si te jëli Papa Sow xam ni daf lay leer ni. Ah. yow da ngay gàmmu si ñëwal gàmmu si. ñu tëgg làmb ji mu neex booy raasi déem. bu la gaa yi jàppee danañ la lap. ba ngay gis bidéew bu cëg <laughs> li leer ba leer mooy Siteu wax na xulooloowu ma kenn hmm. xeexloowu ma kenn maa Papa Sow la Papa Sow nee na xulooloowu ma kenn xeexloowu ma kenn hmm. man ak Siteu la kon que le meilleur hmm. mais li leer ba leer foofu laay delluwaat wax la ab Siteu bu daanee kër Ama Baldé lay jubal Papa bu daanee euh, géejawaay lay jubal après jaar côté Pikine après jaar euh, ci ci ñoom. Ah, jaar ci école bi noonu ci école bi noonu ci ruqum sew bi. ci yokkalaat ci ne la. ardo bu liggéeyul ci ci biir combat bi. bu combat bi jeexee dina liggéey. mais dama bëgg nga jox gars yi dig day ne leen combat bu jeexee dimanche. tak tak ci Songuanté TV rak ak lamb diaspora. maa yow rak tak ci Songuanté TV rak tak ci lamb diaspora. léegi nag li ci des ñi ci des nañu ko jël. mais gars yi dañoo noonu nee mburu mi am na ko ma waxal tey mu ne mburu mi fii na xoyom xoyom mais léegi boulangerie bi fii la ne waaye mburu bi mu nga nekk ca place Baye Fall yi Malika. place Baye Fall yi ci Malika foofu la ñuy jaayee en group bi. en gros bi waaye boulangerie. addiya koy jaay addiya. waaw addiya moo koy jaay mais boulangerie baa ngi fi. <laughs> nee na yaa yor boulangerie mais ñoom. baa ngi fi léegi nag ku bugg nag dangay dem ci addiya mu jaay la. jeex na tàgg <laughs> jaajëf yaa ngi ci biir Songuanté TV bu leen fàtte di emee abonné yu ba noppi di activer cloche de notification bi dara dootu la ump ci réew mi ak ci bitim réew. ak la télé du peuple Songuanté TV KPay di transfert bi wóor ak Aquaterra ndox mi wóor te